asalaamaaleykum mbokk waa Kër Massar man Mamadou Bassirou Ndaw dëkk Kër Massar Diacksao 2 dex gu mag bëggoon na waxtaan ak yéen si sunu problème environnement gox bi ñu amoon lu ñu fi metti daal loo xam ne boobu ba léegi ñu ngi ciy dox awoon nañu ci ay média ñu génne ñu waaye boobu ba léegi ñu ngi dundee yaakaar ci mbir mi waaye gisaguñ ci ay réaction ñun dañ nekk si zone humide zone humide bi nag li ko waral mooy ndoxu Kër Masar yu use yëpp ak hivernage bi bu wàccee si sunu gox bi lay ñëw lañ ko fiy reversé après mu am drainage bu koy yóbbu ba lac Mbëbës depuis si jamonoy Ablaye Wade lañ am difficulté ci problème ndox ay inondation yàlla di def ba 2013 ndox mu bari bi fi wàccoon alors nag mu doon affaire bu metti ñun population bi ñu génn am ay kër yoo xam ne dañu inondé woon ci inondation boobu wax dëgg yàlla mu metti lool Karim Wade ñëw fi wutal ñu benn solution ci dex bi mu defal ñu fa benn kanaal boo xam ne moo aw ci suufu lycée bi lycée bi nekk fii recasement bi tuyau baa ngi fa ba léegi foofu la aw dem ba ca kaw doog a jàdd dugg ci beneen lag bi ci lag boobu nag la ndox mi di trainé di dem lac Mbëbës Macky Sall ñëw en 2012 bi mu ñëwee en 2012 2013 bi ñu am fi inondation bu metti mooy ndox mu bari ma mën na mu bari ma ñu taxaw woo benn confrère leeral TV mu ñëw ñu waxtaan a ñëw ñu télévisé ñu wax sunu xalaat après ci la ñu Macky Sall gouvernement am dimbale boobu xaadim Diop moo fi nekk ministre de l'inondation bi mu ñëwee ñu recensé seet ñi nekk ci ndox mi ñu génne leen fi yóbbu leen Tawfekh bi mu leen yóbboo Tawfekh après mu affaire bi am suivi ñu war fi taxawal defar fi ay plan d'assainissement boo xam ne ay bassin lañ fi def pour le drainage des eaux bi ñu ñëwee ñu defar ñu bassin yi bassin yi nag bi ñu ko defaree danu defar dix-neuf bi waroon na ñëw si dix-huit bi ah ba li ñu jàppoon nag moo jàpp yeneen gox yi alors gars yi lem seen bagage daal di def jaxaay boobu jaxaay moo ñu gën a méttilé canibaas boobu léegi moo freiné woon basin 18 bi léegi nag si freinage bassin 18 boobu ñu gis fi ñoo xam ne dañu taxaw ñu ne suuf si seen suufu maam la seen maam fi daan bay qu'est-ce qu'ils ont fait xamu fu ñu négocier ànd ak promoteur ñu ñëw en 2018 fii ma taxaw di wax ak yéen fii ndox la woon en 2018 promoteur boobu moo ñëw sëkk fii te sëkk bi ni mu ko doon defee itam vraiment euh, guddi la ko daan def mu xel euh, sunu xel tey ci lool presque def na fi un mois boo xam ne vingt une heures la sëkk bi di commencé ba six heures du matin bi nu weesoo loolu nag ban fa jógee léegi nag si le régime bi changé maire yi changé parce que maire boobu doon bi bi affaire bi amee si moom jóge na fi léegi maire bi fi ñëw bi mu ñëwee ñëw na fi ñëw na si site bi doon def reconnaissance xam nga bi mu ñëwee ànd na ñoom ñu ñëw ñu won ko li fi nekk boobu fii ñu nekk nii tabax yii ngay gis yëpp benn nekku fi tabax yii yëpp nekku fi boobu fii sëkk bi rek moo fi nekkoon bi mu ñëwee gis na lépp ñu xamal ko lépp mu ne bu soobee yàlla dina ci taxaw mais taxawaay boobu mu wax ne dina ci taxaw ñun gisuñu ci nu ci taxawee. sinon ni mu taxawee mooy dafa ñëw ñu gis fi garage buñ fi def di muré site bi ñu di ko tabaxaat loolu de moom la fiy gas def si garage bi nag mu tabax. moom moo ñu gën a nag doon suñu problème. Euh, ni mu nekk suñu problème garage bi dañ ko dugal ci biir quartier bi le premier problème mooy garage bi ci biir quartier bi la nekk pour groupe camions yi dugg ci garage bi il faut ñu aw ci mbedd yi fi kër yi nekk pour dugg ci garage bi déjà insécurité nga noonu suñuy njaboot suñuy bâtiment benn insécurité ngi noonu kon loolu lu ñu metti la. ñaareel ba mu ñëw mu tabax garage bi muré ko fii pant la hivernage bu jotee ndox mi day daw war ñëw fii dugg ci dex bi moom mu ñëw muré ko léegi kon ndox mi du jàll te ñun hivernage lañuy daw léegi dañuy obligé kon ndox mi day retourner contre ñun te bu yàggee ah ñu nekkaat ci mbënd léegi nag ñun loolu moo ñuy premièrement mooy li nga xam ne neexuñu si insécurité bi dañuy romb sunu buntu kër yi ak oto yi poussière bi di jóg camion yaa ngi noonu yéen a ma gën a xam camion dafa équipé ak ay tislo am na yoo xam ne respecté wuñu morne yi conteneur yi nii yàpp ah ak suuf si ni aw di ko gas muy gën a xóot plus rang-rang bi conteneur bi mun na sauter ci kaw oto bi ñëw dal ci kër gi yàq wala mu dal ci kaw nit ñi parce que gis nañ ko fi une fois à mbaaw conteneur bu jógee ci camion wàcc ci kaw taxi kenn dund fa imagine loolu insécurité te ñun dañuy gis conteneur yooyu xamuñu produit toxique mi ngi ci biir xamuñu nekkuñu ci mais dinañ gis ay camions yoo xam ne daal produit toxique moo ci affiché si badge yi yi taf ci conteneur yi loolu daal ëlëm ju lool te loolu insécurité la sincèrement insécurité la parce que fii ngelaw li day tourner mun nañu pour tourner ñëw ci population bi. wax yàlla ñun jigéen ñi kay xam nga ñun ñoo gën a sonn sax góor ñi ndax parce que xam nga góor moom bu xëyee day dem ñun ñoo fii des ak xale yi euh, te suñu koñ bi benn sécurité amu ko amul benn sécurité xam nga li ñu wax ni oto yu mag yi yow sa jëm boppam boo xoolee rek xam ne oto yu mag yi waruñoo daw ci koñ di wàcc ak xale yi. sa doom bu jàngi jee tànk duggul ci kër gi doo am jàmm doo am benn jàmm doo ko am di xalaat oto yi di nga xalaat tamit wuy yi nga xamante que ni ñoo fi ñoo fi dugg wallahi sama doomi heure bu ñuy jàngi fajar maa jug yóbbu leen te bu fekkee woon koñ bi am na sécurité bu nekk da ngay tëdd ñoom ñu dem ndax parce que oto moo leen di jël si mais ñàkk sécurité mooy waral da ngay jóg ànd ak ñoom ndax bande yi ñi ngi fi oto yi dañuy daw suba gi dañuy daw guddi gi ah koñ bi lëndëm fan yi sax tane na ndaxte euh, def nañ suñu doole jënd ay làmp pour mën koo taal suñu koñ pour mu mën mu tane. quartier bi dañ koo farte fii xoolal ni mu rëyee amul hôpital amul dispensaire amul marché amul dara ñun lu ñu bëgg rek dañ koy jéggaani dem waxuma la rek oto bu ñu ko waree dugg pour dem marché mën nañ faa taxaw 7 heures ba 10 heures. du ñu am oto bu ñu yóbbu marché te fii ak munoo ko dox dañuy taxaw a taxaw a taxaw taxaw ba sonn du ñu am oto bu ñu yóbbu kon nag bu ñu defaroon fii di sincère wala ñu defal ñu fii benn marché bu ndaw ah moo ñu gënal li wax dëgg yàlla loolu ñu gënal ay oto yoo xamante que nii nii ak suñu sécurité doom bu loolu daal la ñaan dimbal kuñ ci dimbali daal kuñ ci mën a dimbali wax dëgg yàlla ak yonent bi dinañ la sant te dinañ la gërëm. léegi tane am na ñu am ndox am na ñoo xam ne amuñu. ñun dëkk nañ fi lu yàgg yàgg yàgg ci teen la ñuy root ci teen la ñuy root ñun daal kon ñun xam nga ñun ñun nan lañ def suñu bopp ñun waa village waa ñun ñun pour ñun bokkuñu ci dakaar ñun bokkuñu ci pour ñun bokkuñu ci bañ nañ ko ba waa Fare dañuy tooñ nañ waa dëkk ba lañ ñuy wax te loolu nag wax dëgg fa yàlla yonent bi xam nga ni métti na ah métti na te ñu bokk ci dëkk bi kon ñoom waa dëkk bi yëpp lu ñu am ñun waroon nañ koo mën a am. te politicien bu waxul bu la waxul xam naa fi Diacksao de dex bu mag amut amul ndax parce que ñoom bu ñuy politique fu ne la ñuy dugg fu ne la ñuy dugg kon fi am jafe-jafe fi am métti métti yëpp xam nañ ko. man samay doom ñi ngi jàngi ba Malika ñi ngi jàngi ba Malika am na ñoo xam ne unité 4 fu ne la ñuy dem jàngi jee am na ñuy dem case ba fenn fu nekk da ngay yóbbu rek. da ngay dégg fu sa doom am fu fu école am te sa doom ah, foofu baax na nga mën ko faa yóbbu benn école bu mag bi la ñu am unité 4 xale yëpp ñu sol leen ko ba fees wax dëgg yàlla bu ñu amoon beneen boo xam ne suñu doom bi dañ fay mën a dem di fa jàngi jee moo ñu gën a mi ngi noonu ndax parce que bu ñu defaloon fii benn jéggikaay pour xale fu ñuy jàngi jee lycée ba defal ñu benn jéggikaay boo xam ne xale dañ fay mën a jàngi ndox mi mais dañuy wiiri wiiri fu sori la ñuy def pour mën a dem lycée ba mën faa dem jàngi jee xam tamit métti na ah lu ñu ci dimbalee rek ñu jël ndox la woon fi ñu taxaw nii promoteur yi dañ ko sëq di ko sëq di ko sëq ba mu mel nii promoteur bi ko doon sëq bokkul ak promoteur bi nga xam ne moo fi installé camion yi te promoteur bi nga xam ne da ko daan sëq guddi la ko daan sëq maanaam ñàkk nekk si yoon moo waraloon mu ko daan ko sëq guddi bi gars yi yuuxoo lañ ko arrêté moom mu dem bi mu demee quelque temps après la fi promoteur bi borom gros porteur yii ñëw bi mu fi ñëw di fi installé wu clandestinement la fi ñëwee. bi fi ñëw clandestinement la fi ñëwee parce que dafa ñëw daal di ne euh, délégué ak euh, kii ñokk ko fi indi or que c'est pas vrai bi ñuy laajtee après par bi ñu demee délégué def suñu investigation lañ gis ne dafa ñëw clandestinement te bi mu fiy ñëw dafa ne woon provisoirement la fiy nekk defar ay sàkketam mooy sàkket yële sàkket yooyu la warale woon affaire bi donc ñu jékki-jékki gis si biir sàkket yi ma ngay commencé tabax commencé di tabax bi mu commencé tabax mooy miir bi nga xam ne moom moo moo moo moom la descoche daane nii miir bi nii bi mu tabaxee gis gis ne kii nekkul eh, dafa nekk si irrégularité la ko ci ñëw daaneel. loolu nag moo moo moo wër yi yëpp gis nga maison inhabitée yi yëpp ngay gis gis nga boo xoolee même pourtour bi ngay gis nii moo wër yi yëpp yaa yaa naa tellement de maisons inhabitées yoo xam ne nit ñi kii ñu. fii fii dafa bassin la waroon doon numéro 18. parce que bassin numéro 19 bi moo nekk na le suñu doxantoo mën nañ la woon bassin bi bassin bu ñu defar ba pare moo doon 19 bi dañu waroon defar 18 bi avant 19 bi mais bi ñu commencé 19 bi di ko defar ba mu pare ñu war a attaqué 18 bi la la la am inondation bu métti bi fële ñoom ñu plier bagage pour dem dimbali ñooñu depuis lors après ñëwaatuñu pour def bassin bi mais la bassin tel quel existé woon na fii la waroon nekk loolu moo tax bassin bi amu fi. problème mu bi ñuy wax. te réaliser guñ ko canal bi fii eh, ñax mi nekk mu tufi nii jëm nii ma leen joxoñ mu tufi fii jëm nii ma leen taale sama loxo diamètre bi fii la canal 18 bi war a nekk tu vois parce que fii dañ ko ubbi woon pour ndox mi drainer wu ñëw dugg ci biir canal bi comme kanaal yi la ni mu mel tia loolu la leen di porter la seen attention gis nga dana ko réduire gis nga verte verte ba la ngay gis ne le côté bële lépp si drainage bi la bokkoon ba fii léegi nag partant de là nag la canal bi ibbeeku def nii mais ouverture du bi mm, fii la mu jëm côté bële insécurité bi ñu doon wax fii itam dafa am insécurité parce que gis ngeen ni ngeen gis verture bi mu nekk fii fii ñun nekkuñu si sécurité parce que des fois da nga toog jékki gis yeew bu fi génn dañuy jékki-jékki gis yeew bu fi lekk bëy dañuy jékki-jékki gis fi yeew bu fi jàpp euh, euh, euh, xaj yooyu yëpp te fii dafa am ay yeew wax dëgg yàlla dafa am ay yooyu population bi yëpp gis nañ ko te xam na ne loolu am na te loolu insécurité la sincèrement ñu ñu wax autorités yi ñu bàyyil ñu xel ci loolu aussi. lii di wax nii jooyatuñu ko maire jooyatuñ ko promoteur bi jooyatuñ ko kenn ki koy jooy mooy président Macky Sall. mooñ rek mooñ ci mën a dimbali te ñi ngi ko ci ñaan yàlla mu dimbali ñu ci leeralal ñu lii bala mu fee jógee wallaay war nañu koo leeralal ndax parce que ñun daw nañ ci moom guddi daw nañ ci moom bëccëg ah, am na benn rakku Marème fay Sall boo xamante ne bu seetaanee lii dina xam ni fii moom ñëwoon na fi te bu xoolee dina ma xàmmee man mii ndax man la fi fekkoon man la fi seet si woon xanaa dañ cee dëgg seen tànk mais lii daal moom ñaanuñu ci kenn dimbal ku dul président Macky Sall président Macky Sall nañu dimbali ngir yàlla ak yonent bi wax fa dëgg yàlla ak yonent nañu dimbali ñu ngi koy tàllal loxo di ko ñaan ah problème a ngi fii de bu fekkee day faj problème yi balaa dem nañu ñëw dimbali fajal ñu suñu problème bii génneel ñu oto yi defal ñu fii dara loo xamante que nii ni luñ fi mën a jàppandikoo la ñu ngi ko koy ñaan di ko koy ñaanaat waaw lum ñu ci mën a dimbalee rek ñu jël. ñu ngi ciy lancé appel mais ñu ngi koy lancé ci gouvernement bi surtout notre président de la république ñu di ko si ñaan ndimbal nu mu ñu mën a jàppalee ba sécurité bi nekk fii ak tabax yi anormal yi fii def ah mu mun ñu see jàppale ñun nag site bii li tax ñu taxaw si. bëggu mu dimbali ñu si ah mooy sunu environnement mënuñu ko tabax de moomuñu ko état moo ko moom waaye état bu ko soxlaa mun na ko jël mu utiliser ko état bu fekkee ne soxlawu ko mais ñun ñi fi dëkk ñun ñi dëkk si gox bi ñun soxla nañ ko bu boobaa ñu proposé ko liñ fi bëgg bu nu mënee jàppale defalal ñu. mu defaral ñu parce que ñun mënuñu defaral suñu bopp état bu ñu mun a jàppale waaw loolu moo tax nag fi mu nekk nii gox bi dañu si taxaw tem pour am ci solution monsieur le président yàgg sa gouvernement ngeen jàppale ñu ci mbir mi boo wax dëgg yàlla ñu génn si situation yi ñu nekk insécurité am na fi lool garage bi indi na fi insécurité fii agression moo fi am tout ça wax dëgg yàlla te ñun suñu doom yi sax déjà amuñu milieu d'épanouissement fu nu fooyee amuñu ko te vraiment soo ko soxlawul pour def ci say structure administrative ñun soxla nañ ko pour def fi terrain de football soxla nañu hôpital soxla nañu dispensaire fi mu nekk nii fii ku fi bugg a faju da ngay jóge fii traîner dem ba hôpital Kër Massar bu fekkee ne dispensaire wala maternité nga jóge fii dem ba gannaaw mairie ba gannaaw mairie ba pour nga dem faju foofu pour nga dem accoucher ji foofu imagine loolu guddi nga jógee côté mbëbës bi ñëpp pourtant bu ñu fi amoon hôpital wala ñu am fi maternité wala ñu am fi dispensaire ñun ba mbëbës ba mali ko montagne mun nañ ko bénéficier woo moo ñu gën a moo ñu ëpp rendement ñun ñu fi tagal garage parce que garage bi déjà insécurité la